ci seen côté dimbali doomu aadama yàlla dafa def loolu dafa bokk ci li nga xam ni mooy njëkk li njëkk ci moom. dëgg doomu aadama bu ne fii ci senegal xam na ko mais ay mbiram moom bëggul lenn loo xamante ni nit da koy siiwal. loolu moo waral man daaw ma ko wax ne ko par force nga ñëw ci koñ bi bi yàlla defee mu jot ñëw na pour xool leen waxtaan ak yéen jeunesse bi ñii am nañu ko ci xam bu baax. am na ci ñoo xam ne tey ña nga fële di liggéey ak feneen ak feneen foo xamante ni ñu ci bari yàlla def na jox na leen xëy man nag xam ngeen ma lenn mooy sama jikko fu ma fekk foo xam ne day dimbali doomu aadama damay dem ñoddi mu ñëw loolu Sénégal gépp xam nañu loolu moom nag mu nekk koo xamante ni yàlla suñu borom def na yàlla suñu borom def na moom la tax mu bëgg ma ma nga soqeekoo ci cinéma bi ci ci euh, centre commercial bu mag boobu ngeen di gis

ña fa nekk ay jàmbaar lañu saabu du fóot boppam mais am na ci leen loo xam ni ñun loolu mooy suñu jikko fu ñu gisee kuy dimbali doomu aadama ñu indi teg am na ci loo xamante ni jot nañ ko fi def ci ay at bañ koy def gis ngeen na ko doon def ak naar yi def ko Pape Sagna Mbaye moom yàlla suñu borom def ñooñu ñëpp ay partenaire am lañ du ma wax nag ñooñu ñëpp nan la ñuy def ci moom mais li wér te mooy yéen yéen a ngi nii toog ngeen fi toogaay bu yàgg am na ci ñoo xam ne dañuy dañuy dem taal ndogu ñëwaat nee naa ko nag yàgg nga xam naa ne ñii nga xamante ne dañoo war a taal taali ndog bu ñu fi toogee ba heure ndog moom soo ñëwee yàgg ñoom beneen affaire lay doon mu ne ma non maa ngi départ maa ngi ñëw kon nag li am solo mooy buñ ko sorox sorxoo dama bëgg kenn ku ci ne bu doo taxee fii di wax li nga xamante ni moo tax a toog fii nga wax ko ci façon boo xamante ni moom da ciy am dégg-dégg lenn li nga xamante nag moom mooy jikkoom mooy jëfam moom dina nettali ci gémmiñu boppam wax ni nga xamante ni noonu lay yàgg defak doomu aadama yi ba tey mu ñëw war koo def ak yéen nee naa ko sa ambition nag ñun pikin gi yëpp pikin bépp dañ ñi da ngaa war a jóg politique jël pikin parce que lu tax yaa ngi invertir loo xam ne ay milliards la ci pikin te ñi fi dëkk defuñu ko fi kon nag li am solo mooy que ne yow da nga war a jóg wane sa bopp dimbali doomu aadama yi moo la tax a jóg dimbali leen ba ñoom koo dimbali ku ne dina xam ne ëllëg leneen loo bëgg daf la ciy jàppale de gauche à droite li ko indi mi ngi nii toog kenn ku ci ne bu fekkee da nga war jël parole heure ndogu dafa gaaw te li ko indi moom mooy yéen yéen yéen a ko indi yéen moom moo tax ngeen toog fii kon li ci am solo mooy kan ni ñu commencé waxtaan wi ngeen déglu ko mu waxtaan ak yéen directeur waaw waaw mii ñu ànd fii di wax ne bokk na ci li nga xam ne bi ñu ñëw ci yoon bi yëpp mu ngi koy mu ngi koy métitlu muy tardement bi nga xamne amna te yàlla dogal ko jaar lako ci jëmmam ci mu ci balu ñëpp ax di xamal nit ñi ne lool du sagom xañ na wallahi azim auto bi yëpp lool lay wax loolu auto bi yëpp waxtaan mi lool la am naa lu ndax suma sañu nit ñi duñ ma xaaree noonu Sénégal nak dafa xawa yaq lool ñëpp xam nañ ko xañ na bu ñu taxawatee ci jotaay yu melni di wax ndax jotaay du fi ben ku xam caaro xamne xam ne mën naa ne buñ ko defewul fi yag nañ ko fay defee ay nit ñu bari yàgg nañ fee ñëw dajale fi mbooloo mu toll nii mbaa mu ko ëpp ngeen daj ci ay coono bu ëllëgee ñoom ñi am leneen dem du ngeen leen gis yàlla nag dafa dogal kii nga xam ne moo fi ñëw seet si es ak ay xaritam nga xam ne ñoom jotaay bi sàkk nañ ko jul tollu ci at moom mu ñëw fi ak banneex ak mbégte li ko tax a jóg du lenn lu mooy nan lay réew mi amee jàmm nan lay réew mi développé waaye nan lay nit ñi amee koom-koom maanaam développement rawatina si jigéen ñi ak jeunesse bi ndax wax dëgg yàlla man li ma mën a seede mu wóor ma man tax moom bu jugoon di dem ba ndar di dox ma topp ko nit bu demee ba ne la man sama sama samay mbokk taxu duñ may sonn samay rakk taxu duñ may sonn waaye képp ku ma xam rek bëgg naa nga am teraanga kooku yaakaar naa nit ku nit ku bon wala nit kuy wër mbiri boppam yaakaar naa doxee noonu centre commercial bi rek doy na doy na doy na édifice boo xam ne buñ ko tuddee wax dëgg yàlla bu doon teraanga ku muy wut li may sàkku ngeen ñaanal ko mooy sunu borom gën ko fee yàggal gën a barkeel ay mbiram waaye li ko tax a jóg du lenn lu muy am yërmande ci askan bi waaye rawatina sunu yaay yi ak xale yi ba tax na nee na moom de bu sañoon jigéen ñi nga xam ne daje nañ fi ci ñoom la gën a insister ak jeunesse bi bëgg na bëgg na xam wax dëgg yàllam lan mooy seen i jafe-jafe lan mooy seen i ak lan mooy seen projet ndax dajale ay nit may leen ay t-shirt wala may leen ay tissu yaakaar naa réglé wul seen i mbir nit boo ko bëggee dimbale da ngay fexe xam lan mooy ay bëgg-bëggam lan mooy ay projet am loo xam ne que boo ko ci dimbalee bu déwénee bu ngeen dajee sax amaana moom mu dimbale sa xarit mbaa mu dimbale dëkkandoo mbaa mu dimbale keneen man yaakaar naa suñu jógee fii yaakaar naa liggéey bi nga xam ne war nañ ko ci def ak es mooy fexe ba xam jigéen ñi fi nekk nan ci yan anam ci yan plateforme lañ leen mën a dimbalee ba bu déwénee waxtu koor wii nga xam ne weeru barkeel la weeru yërmande la buñ fi ñëw yaakaar naa neneen la ñuy wax lii lañ fi def ak lañ fi def xañ na loolu la woon ne dinañ ko yëkkati ci turam ñu ngi jéggaluwaat bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf. di leen baalu àq ci toogaay bi di ziar tamit suñu tonton euh, S di ziar tamit euh, suñu monsieur Fall Ousmane Fall ak xarit tamit ak yéen ñëpp daal ñu ngi leen di ziyaare bu weere a wér euh, Grand Yoff moom dañ koy ñaanal ndax tey ginnaaw raay boo nee ginnaaw raay man barki démb laa jóge université guddee mais taximan bi dama ne ko ginnaaw laa jëm mu ma fan ginnaaw raay koñu es mu ne ma mu ne ma maa lay yóbbu te pourtant moom xamul es mais dama ne ko koñu es ka laa jëm mu ne ma maa yoobu yóbbu moo ma indi ba fii kon loolu gàcca gàcci ngaa laa ma moom mhm. ñun nag euh, man maa fi représenté asu ceeb man maay secrétaire général am comptable de formation mais amuñu xëy waaw amuñu xëy waaw ñun nag 122 membres lañ 122 membres lañ am na ay jaaykat am na ñuy jàng am na ñuy liggéey mais ndimbal lañ soxla parce que démarré nañ ak 100 francs mais amuñu doole parce que am nañ ay activité lu ñuy wax euh, activité génératrice de revenu doon nañ ko def di leble doon dem si ay banque mais ku ne xam na ni banque ay mbiram yombut ñu daal di dagg di def crédit alimentaire parce que xam nañ ni kër yi dafa metti te jigéen ñi mënuñoo yor lépp ñu doon def di jënd ravitaillement di ko joxee nit ñi ñu koy fayee nu ñu leen neexee par nànk-nànk jënd ceeb jënd diwlin yëpp man maa ko géré woon xam ak ñi waa yeneen membre yi di ma jàppale mais comme li ñuy wax rek nit mënul lépp crédit alimentaire foo moo koy def ñu daal koy dagg doon leen def tamit caisse sociale chaque fin du mois ñu cotiser ku nekk 500 di ko dajale pour bu ñu amee ay ndog-ndog mais dañoo dem a corona bi mu bëri ay problème on a beaucoup de cas sociaux cas yoo xamante ne mënuñu koo régler te ku ñu si dimbali ñu jël ñun daal tamit am na ñoo xamante ne ay chômeur lañ sama genre gi soxna lañ xëy te amuñu xëy ay comptable lañ mais ñu xëy stage rek la ñuy def xam nga am na jaaykatu jën yaa ngi fi jaaykatu mango yaa ngi fi jaaykatu ñeneen ak ñeneen yaa ngi fi ku ñu indi ku daal ñu dimbali la parce que yàgg nañ chaque jour ñuy woo ci ay jotaay ñuy toog Nous, ñu jox ay promesse ba ci suñu jigéen ñi am na ñoom tam soxla nañ formation formation defar ay euh, araw leneen ak leneen ak céréales locales mais chaque fois dañuy dikk ñun tamit am nañ objectif mooy suñu objectif à long terme mooy créer euh, un métier d'épargne pour suñu kii parce que tamit dañuy def épargne crédit euh, pour la tabaski ndax chaque femme bu joxee 500 ou 1000 francs ñu dencal ko chaque dimanche ñu koy dencal chaque dimanche ñukoy koy dencal lu mu am mu daw indi ñu dencal ko ko ba tabaski nga genn ben 200000 ni ko lii kat ya ka fi amone bu boba kër gi di tabaski bi dina mëna neex tàccu len lolu wa <laughs> ñun dal ci lolu lañuy dox ñàkkul nak ñu ngi def suñu capacité d'autofinancement manam di cotiser suñu 200 xamé xamé ni 200 mënul dara ku ñu dimbali nak ñu jël ñi ngi cotiser ñi ngi ram ñi ngi nank nank mais suñu activité yu ñu gëna soxal mooy crédit alimentaire ak suñu cas sociaux yi ñu régler ko loolu soxal nañu ak suñu xey fam yi ñu bëgg nañ ku leen financer ñu mëna dem parce que tamit fam fi ñom ñëpp am jom ko ci financer mu liggéeyal la jox la té ñun suñu financement dañ koy tek ci yoon parce que comptable mo koy lijeenti buñ la joxee suñu financement dinañ la wax kat fi nga koy awalé accompagner la ba nga xamanteni financement bi di nga xam fu mu dugg ba am sa revenu té inshallah jour bo ñu financer année pour année bi di ñëw bu ci yalla andé do ko rëccu di nga ni ñi kat ñaa ginnaaw laay ñoo jar a àndal wasalaam. jërëjëf soxna ci togaay bu yàgg bi. xañ na du ci coobareem waaye situation da koo dab ñun nag ñu tàmbali suñuy wax te duñ ci jiital suñu kilifa gii ndax kii day lépp ci ñun Escale mi day lépp ci ñun bu ñu nee def leen ñu jóg bu ñu nee bàyyi leen ñu bàyyi te dëpp ñu nekk fi ba léegi ak moom andeegu fi dara loo xamante ne dañ ci am défaite man mii di wax ak yow actrice de développement la yàgg ci développement nag comme ni ko sama nawle yi waxee ñun ñëpp ci ay groupement féminin la ñu bokk ñetti groupement ñu ngi fi daje man sama groupement mi ngi tudd ànd taxaw ginnaaw raay waaye comme lu sama sœur bii wax loolu doo nga fi nekk mosuñoo am partenaire bu ñu dimbali mosuñoo am kenn koo xamante ne promettre nañu dara ba exécuter ko def ko ci yaakaar gu tas dong la ñu dëkk waaye ñu ngi gëm yàlla wóolu yonent bi nekk ci li ñu nekk rek xamuñu ñaani xamuñu at bi jigéen ñi nga gis fi ni ñëpp ñak tedd rek lañu xam ñak tedd dimbale seeni borom kër ñu daraay góor lu dul suñu yëfu borom kër gis nga es mii dama japp ben anecdote rek ci mom en 2008 PAM programme alimentaire mondial da fi wacc yalla dogal mu dal ci man ñu joggé fi ci commune bi di wër ay personnes ressources ak nima ma ko xamé mom mi ma indiqué len ko and ak ñom ba ñu toog waxtaan ci liggéey ci ci projet boobu man ak moom ñu véhiculer ko muy un an boo xamante ne chaque mois famille démunie yi ànd ak moom ci boutique yi nga xamante ne programme alimentaire mondial daf leen a fayoon ñuy dem di jëli ay ravitaillement fii bëri na ñu fi bénéficié woon ci loolu c'était en mille 2008 te boobu ba léegi kenn toogul man mii di wax ak yow gestionnaire laa te def naa marketing waaye damay chômer njaboot jiital na ma te li ma wax moo xuri ñuy toog fii yëpp ba léegi nag tooguñu dañuy xëy nekk ak suñu borom kër yi ci waar wi ba wàcc da jot ñu wàcc daje ci kër yi gérer njaboot gi faal nag sa jëw jiitu na la fi ndax depuis mu ñu ko wax dañoo ñëw def suñu organisation ndax ñun boo gisee ñu sawar ci loolu moom ma suñu fee andil ku nu gàcceel te mat ak fulla gi ñu xam ci moom moo tax bu ñu nee jóg leen ñu jóg bu ñu nee yem leen fii ñu yem fa kon bok yaakar gi mu am ci yow ne yaakar ngeen mën nañu ko dimbalé ñun jigéenu ginaaw raay yalla bu yalla suñu borom tas yaakar bobu yalla na nu yalla may yoon bu leer bo xamante ne ñu dimbalé ñu nit duñ la tek gatché ndax yaakar na ne boo ñu say financement de ba déwén ci heure bi bo fi ñëwé di nga gis un pas de plus kon bok yalla nañu yalla sutural lool la amoon ci lu may wax. li lii ñu avant tout tamit moy nuyu sëñ Ousmane sëñ Ousmane ñu ngi lay ziar lu dila ñaanal yalla yow it yàlla nga am wër am fanu wu gudd waaw di di len sant yeen suñu jigeen ñi waaw vraiment de lu taw lu bëgguma woon bëgguma woon wax sax bëgguma woon sax sax mais so len téwé il fois ko mu wax parce que parce que li duna goulet parce que ku yalla dimbali nga am jigeen ñu melni da nga wara a sant suñu borom ak jamono bi ni mu mel motax ñun lu ñuy def pour ngeen avancer lu ñu ci mën parce que ñun la waron mais gis ngeen ni yàlla mooy joxe li ñu am lu ñu as as néew as néew yéen a ngi koy bokk ak yéen it bàyyi leen ñu seetaan ñu leen ñu yéen a ngi def loo leen mën pour ñu avancer sëñ Ousmane di la ñaanal lu baree bari rek di la yëgal nag di la wax suñu bopp es man ak moom ñoo bokk ndey ak baay moo na maa topp ci moom mais es yenn saa yi damay toog ba si yàgg mere ko man ko mais es yow ñi nga xam ci ñu baax ak liy jaar sa loxo mais gis nga jamono bi ni mu demee ku ci nekk bopp ca bopp lay dundee te ngaa ñëw ñu dundee suñu bopp ut feneen kër dem dëkku ji mu reetaan ni ma booy yow waxi dof nga. joxe joxe du nit di nga bëgg a joxe mais yàlla moo la ciy xiirtal ñu bëree ngi am ay milliards mënuñoo joxe mais kooku yàlla moo leen ciy xiirtal parce que am na fa mu leen dëkkal nit booy joxe na la ren sa ginnaaw waxuma la sa sa fii mais sa fële yëpp day baax di wax nag ñii. loo ci mën ci dimbali ñii parce que boo dimbali ñii dimbali nga ñu parce que ñii lu ñu am ñun ñoo ko moom ba ci regroupement ñiy wax nii sama soxna si am na yu bokk man bu tabaski jotee gan yi laa laay sol dama du ma xam ni moo demee damay ñëw yenn saa yi sax dama naan ko woo oh jasineer ah jasineer damay ñëw sax man xaw ma man man rubsi man lii sax mun naa ko julli jee mu ne ko yee eh defal fóotal mu ne ma looy tabaskee man ne ko waay xoolal fii rek bu benn nga fóot tegal ma fële mu ree fóot boobu ba mu naay teg bu ma sangu jee ba ñëw damay fekk mu pekete ba mu naay teg fii ma ne ko ah, waaw waaw waaw ma ne ko ma ne nii nag mu ne ma si projet diw ba la ma fa am ma ne ko ah, mais li nga si am doo ci def leneen mu ne ma ah ci nga bokk mais xam nga ni kooku kon nga ñaanal ko projet ba gën a yokk ñun loolu lay ñaanal rek loo leen mën a dimbalee nga dimbalee na ko fii tamit dañu am ay doom am ay jarbaat gis nga fii espace bi gis nga ñun ñun duñu ñu affaire politique yooyu man affaire politique gëwuma ko gëmuma mairie gëmuma kenn sama bopp laa gëm parce que fii nii ak daba mbay waaw ak daba mbay waaw waaw fii fii fii problème lañu am waaw ak maam Bousso ak maam Bousso fii problème bi mi ngi nii suñu doom yi amuñu fu ñu foowee même ñun bu ñu xew si biir sax ñëpp fii la ñëw espace bi tey ñun ñoo ko suñu bopp mais bu ñu xeexul woon suñu bopp espace bi miir bi fii la jëm miir bi fii fii bi projet bi Dakar ba jam ñaajo lii rek ñu ñu nekk ko fi am ndax suñu bakkan lañ ci tegoon parce que xam nañu bu ñu bàyyi woon fii ñun déjà c'est fini parce que suñu koñ yi xam nañu amuñu fu ñu foowee xale yaa ngi nii fii la ñuy nekk di kii problème mooy fii suñu amee lu ñuy bëgg ay xawaar rek affaire yooyu wala même ku mel ni yow ñëwoon fi tey jii ñu dalal la fii xale yi di si foowe mais ñoom gis nga seen bopp lañ fi nekkal amuñu toppatoowuñ ko sax parce que déjà amna na si projet bu fi amone maire en tant que maire yow nga wara financer ay sey sey jigen ñuy liggéey nga naan projet maire di si teg intérêt fan la am man bi sama jabar ñëwee di si wax ma ne ko bii bu projet maire bi bo leen ko jëlatee nga bayyi ci projet ci fofu parce que maire luma ci xam moy mu dimbali leen ngeen avancer mais pas intérêt xaalis bu mu leen jox di si teg intérêt ngeen ngeen ko koy dello légui nak ñun suñu problème moy tamit ñun góor ñi fii pour suñu domi fuñ fu ñu leen defaree jardin public bu rafet bu buñ ko mënee am xayrun su ko defee ñu ut fële suñu saa de musculation parce que ut doole dafa baax waaw non doole baax na waaw xam nga waaw mais ni ñëpp aménagel ñu daal fii man man moom loolu mooy sama programme waaw fii daal ku ñu ko aménagel bu ko defee suñ tuut tànk yi gis suñu boppam ñu nit ku si ku si ñëw ba tàngaay baa nga ñëw ku si ñëw ñëw toog fii féexlu fii la ñu am wasalaam waaw man de bëgg naa la man de bëgg naa la Ousmane bëgg naa la ñaañu gàmbal gàmbal est-ce que bëgg na la ayi est-ce bëgg na la est-ce bëgg na la kaañu gàmbal gàmbal ku ci ànd ak Ousmane tàccul sa loxo anañu ko bëgg ana ko bëgg es fii de yaa ko moom fii de yaa ko moom fii yaa ko moom xam ngeen ku ñu woo est-ce que woo ngeen gor woo jàmbaar woo bete bete woo ku ndeyam gërëm ak fameem ak waa koñ bi maa ngi déjà maa ngi jégalu ci retard bi retard bi mu fi ñëwee quoi trois heures lañ fa waroon ñëw dafa yàlla dafa dogal nag ñu nekkoon ci ay liggéey amoon ay réunion si nekkoon moo tax ñu xaw a naaje ñu ngi siy jégalu encore ñu ngi siy bu baax a baax quoi es moom suñu nit la quoi wax dëgg yàlla suñu nit la suñu waay la depuis général Abdoulaye Diop moo ñu boole woon ak moom ak le préfet te depuis bañ nga xamee ba léegi aussi gisuñu dara lu ñu naqari ci moom quoi. es suñu waay la vraiment xamante nañ bu yàgg depuis si général Abdoulaye Diop moo ñu boole woon ak moom ak le préfet euh, ñu gis na nag lu muy représenté ci banlieue bi quoi aussi nekk nit ku bëgg banlieue bi nekk nit ku bëgg goxam quoi parce que man es. yaakaar naa ba ma nga xamee ba léegi mosuma woo téléphone wala mu ñëw sees ma ba wax moom mbiru boppam quoi pratiquement loolu moom dama koy seedeel quoi heure bu kiiwee danaa moom mais mais déjà fexeel ñu defal ñu dara suñ ginnaaw raay xam nga fexeel ñëw fa fexeel xool noo ñu jàppale quoi te loolu ku bëgg ku bëgg goo xam rek moo koy def euh, d'abord pour commencer dañu bëgg xam naa rek ñu présenté wu il faut que ñu leeral benn mbir daal maanaam ñun duñu ay politique euh, deuxièmement liggéeyuñ ci état waaw ñun ay ay homme d'affaires lañ suñ mbiru bopp lañ yor fi lañ juddoo nag màgga fi yoroo fi ba li ñu réaliser yëpp ñu réaliser ko fi dañu bëgg a jug jàppale suñ dëkk quoi te xaaruñu dara en retour nag waaw xaaruñu dara parce que ni ko soxna yi waxee tamit euh, dégg nañu wax ji quoi maanaam bëri na nit yi leen fi daan dajale di leen dig te duñ leen defal quoi ñun nag duñ leen duñ leen dig quoi wax dëgg yàlla duñ leen dig dinañ leen defal lépp lu leen mën a jàppale te yàlla tax quoi parce que dañ jàpp suñ devoir la parce que lépp lu am Sénégal lañ ko amee fi lañ liggéeyee fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ jàngee xam nga peut-être commerce bi ñu nekk ak industrie mën naa wax ne lépp lu ma ci am peut-être yéen ñi bokk ngeen ci parce que ku ci nekk xëy na bu ma duggee këram dina am sama benn produit boo xam ne mos na ko jënd te ma indi ko Sénégal kon ça veut dire que lépp lu ma am mu mu néew mu bëri jàpp na ci quoi. parce que yéen ñi ñëpp ku ci dugg këram xëy na peut-être am na dara lii bu muy laal wala benn rideau bu mu wekk ci ci biir néegam peut-être maa ko indi Sénégal bu dee benn juróomi dërëm te ma ko ci amee bénéfice kon ça veut dire que ne lépp lu mu am participer ngeen ci quoi donc en retour ñun aussi dinañ leen jéem a jàppale lépp luñ mën te yàlla tax nag te séntuwuñ ci dara tamit séntuwuñ ci dara en retour quoi parce que ñun politique intéressé wuñu quoi waaw politique waaw politique intéressé wuñu c'est juste que ni dañu nekk nit ñoo xam ne dañuy génn di tukki dem dëkk yu bari quoi te buñ sañoon lépp lu am ci yeneen dëkk yi am suñu dëkk te dama gis ne moom lay waxoon ni ma yoroo sama xarit ba ñu ñëw léegi quoi dama gis ne liiru yoon quoi maanaam bu ñu xoolee benn région de Dakar ñu ñu dëkk Maris ci xëy plateau ko bu ñu fa jugee ñëw ñëw caare mel na da nga benn dëkk dem beneen état loolu jaaduwul ko vraiment quoi parce dëkk dëkk benn benn région warta mën a am warta mën a am ñaari contraste bu mel nii warta waru fee mën am quoi vraiment quoi waruñoo teg yenn nit si dans de très bonnes ñeneen ñu bàyyi leen seen bopp loolu moom du yoon kon daal euh, xam ne ne kontaan naa trop si ñëw ñëw seet si leen te allah li leen njëkk wax d'abord maanaam mooy ñetti ñetti GIE yi fi nekk euh, dama bëgg aussi bu ñuy def aussi ñu def loo xam ne day tegu ci yoon tegu ci loo xam ne lu professionnel la loo xam ne aussi dañ koy duñ ko def rek ñetti nit jariñoo ko wala ñeenti nit quoi waaw léegi dañuy fexe ñetti GIE yi ngeen toog def seen benn plan détaillé ñu xam ku ci nekk ñu yëkkati benn montant bu conséquent jox la ngeen dépassé ci liggéey boo ci liggéey nag c'est juste pour ngeen jëm ci liggéey jëm ci def seen projet parce que ñu jar a jàppale ngeen quoi waaw ñu jar a jàppale ngeen et tout loolu dès semaine prochaine mën ngeen ci commencé. nga xam ne bu ñu correcté par rek allah ñu ñu jox leen financement yi ngeen ngeen liggéey quoi. loolu mooy première euh, première ma deuxième deuxième chose bi aussi mooy dégg nañu ñu fax lépp aussi quoi parce que maa ngi dégg soxna si la mu ne comptable la. Ah, waaw keneen ki keneen ki ne gestionnaire la. gestionnaire ñoom ñaar waaw xam nga yu mel noonu aussi moo jaarul ci dëkk quoi maanaam euh, ni dafa juddu ñu sant ko jàng mu jàng. kon kooku def na li mu war a def quoi. nit ki bu jàngee ba mu bac dem université pour man le minimum rek ba master deux xam nga déjà mooy loolu loolu moo dul yoon quoi moo métti na nag quoi métti na mais incha allah rabi xëy na peut-être li ñuy def mën na bañ a bëri parce que ki suñ doole tool lañuy mën a defee quoi mais dinañ def suñ kéem laay kàttan te duñu yem ci lii kese incha allah quoi loolu moom dañ leen koy promettre te du diggaate yoo xam ne dañ koy dig nii rek mu mel ne waxu politicien quoi non loo xam dañu am yéene def ko parce que dañu bëgg dañuy yëngu ci social déjà daanañ ci yëngu avant ñuy ñëw fii peut-être daanañ ko yëngu feneen ñu xamee feneen suñ suñuy gox muy Louga muy Njàmbur muy feneen seen gox bi dina leen jàppale ba ngeen xam ne jàppale nañ leen te xaaruñu si dara nag loolu moom dañ leen koy teel a wax quoi xaaruñu si dara parce que dañu war a dimbali suñu Sénégal xam nga dañu a dimbali suñu réew dañu war a participer suñu développement wu dëkk quoi waaw c'est c'est juste ça nag quoi loolu laa amoon ci ci li may wax ci gàttal parce que dafa dafa guddi quoi